حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله
أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الأمة وصلاة القائمة وأنت محمد اللهم صل وسلم وبس مقام محمد الذي الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان الصلاة من أحب وأفضل الأعمال إلى الله تعالى ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها رواه Bukhari mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu sunu xutba mooy fadlu takbiratul ihrami mooy ngëneelu kabbaru armal lan mooy kabbaru armal mooy bu julli jegisee bilaal dina noot buy yëgle ne waxtu wi jot na su ñëwee après ñu lixaam kàbbar googu imaam di def di wane ne dugg nañ ci julli gi loolu mooy takbiratul ihrami mooy kàbbaru armal buy wane ne armal nañ julli gi dugg nañ ci kàbbar boobu la ñu bëgg a bégal ñi nga xam ne chaque jour ñoo ngi koy fekkee mu ne abshiru yaa kiram yaa man adraktum takbiratul ihrami bég leen kontaan leen yéen ñu tedd ñii yéen ñi nga xam ne waajal ngeen seen bopp ba du ngeen dabe ci julli du ngeen fekk mukk imaam am benn rakk wala ñaari rakk wala ñetti rakk ngeen di matal déedéet yéen chaque jour yéen a ngi ci ginnaaw imaam su waxee allahu akbar ngeen ne ah allahu akbar yéen ñooñu bég leen déglu leen tey xéewal yu rëy yi ngeen am yéen ñooñu nga xam ne yàlla moo leen may ngeen di fekke takbiratul ihram dafa am benn waay ci benn jàkk saa yu bilaal bi noddee day fekk waa ji taxaw saa yu bilaal bi noddee rek day fekk waa jaa ngi taxaw benn bis bilaal bi ne ko yow saa yu ma ñëwee ci jàkka ji rek di ubbi si jàkka ji dama la fi fekk lu tax doo xaar ba ñu noddu ngay doog a ñëw lu tax ngay njëkk a ñëw mu ne ko damay wuyu si yàlla balaa mu may woo comme xam naa yàgg-yàgg daf may woo te dama koy wuyu ji lu tax may toog ba mu may woo naa dem wuyu ji rek allahu akbar loolu mooy imaan loolu mooy dégg diine loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan man yuridu llahu bihi xayr mu ne yufaqihu fi diin ku yàlla nammal yiw yàlla da lay déggloo diine ji moo tax yonent bi ne rahima allahu imraan samia maqalati fa wa'aha thumma addaaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw'a min as-saami'i yal na yàlla yërëm ku dégg sama wax bi mu ko déggee mu mokkal ko bi mu ko mokkalee mu dem joxe ko ni mu ko déggee yonent bi nee na bëri na ku gàddu wax dem di ko jox ay nit fekk ña ngay wax wax ji ñoo la ko gën a dégg waa jooju di def balaa ñuy nodd mu dem jàkk kooku dafa dégg diine kooku dafa xam importance dem jàkka balaa ñuy nodd xam ngeen ne julli min ahabbi wa afdalil amali dafa bokk ci jëf yi yàlla gën a bëgg moo tax ibnu mas'ud nee na laaj naa yonent bi mu ne sa'altu nabiya man ibnu mas'ud maa laaj yonent bi sahaaba yi ñoom buñ daan laaj yonent duñ ko laaj ku wird nangam ñaata ngay am xaalis ku bëgg a am dépasse lan ngay wird xam nga ñun tey loolu la ñuy laaj ku bëgg a gudd fan looy def ku bëgg nangam ku bëgg nangam sahaaba yi ñoom dañ doon laaj yonent lan moo leen di dugal aljanna lan la yàlla gën a bëgg ñu def ko ibnu mas'ud nee na maa laaj yonent bi yónniwu ma kenn sa altu la wax lan la ko laaj ayul amali ahabu ila allah yàlla lan la gën a bëgg ci jëf yi sallallahu alayhi wa sallam di ko tontu ne ko assalaatu ala waqtiha julli ca waxtu wa julli ca waxtu wi doo bàyyi ba waxtu wi passé ba imaam raw la nga ñëw ni dabaatal déedéet mu ne wa awalu shay yasalu wa awalu shay yusalu al abd yowma alqiyama alsolaa li ñuy njëkk a laaj ëllëg jaamu yàlla bi liñ koy njëkk a laaj ëllëg yowma alqiyama suy dekki di taxaw ci kanamu yàlla yonent bi nee na mooy julli assala mu ne fa iza salahat salaatu salaha sairu amali wa ida fasadat fasada sairu amali doomu aadama bu dee cëpp yowmal qiyaam liñ koy njëkk a laaj mooy julli mu ne su julli gi baaxee yonent nee na mbooleem jëf yi dana baax waaye bu julli gi bonee mbooleem jëf yi dana bon ñaari mbir moo nekk ci hadis bi li ñuy njëkk a seet mooy julli su julli gi baaxee lépp baax na waaw ku baaxal julli da ngay baaxal lu nekk ginnaaw julli ku mënul julli mënul woor ku mënul julli mënoo aj ku mënul julli mënoo jàpp képp koo xam ne julli mënoo ko li muy tekk mooy jaamu yàlla yeneen yi mënoo ko saa yu julli gi baaxee kuy baaxal julli day baaxal lu nekk ci ginnaaw julli foo fekk jullikat da nga koy fekk muy respecter rendez-vous lu tax ndax rendez-vous yàlla la njëkk a respecté du ko tardeel moo tax du tardeel liggéeyu keneen même bu dee jigéen sax du tardeel añam ndax lan respecté gi mu respecté yàlla ba respecté julli gi di ko def ci waxtu wi moo tax leneen lu dul loolu daf koy respecté moo tax sunu diine ba julli yàqoo la sunu diine yàqu waaw bu ñuy julli léegi mel ne ay jet privé yuy naaw def julli rek tak dóor mu daanu ah def julli këpp këppal moo tax sunu mbir yàqu ixwaani wa li annana nabhas wa najtahid an nakuna an takuna salatuna ala ma yuhibbu allah wa yarda nahdi hadihi risala likulli man yuhibbu alsola wa yas'a lah la yashghiluhu anhu amrun wa yati ilayha saa'iyan laha bisawqin mubakkir qabla iqamatiha jalisan yantaziru aliqama liyanala alfadila alazima التي بصر بها صادق الأمين المصدوق صلى الله عليه وسلم لمن يدرك التكبيرة الأولى mbokk yi comme nun dañu bëgg di yittewoo di gëstu loo xam ne mooy kontaan loo yàlla mooy tax yàlla bëgg nu mooy tax yàlla fay nu comme nun noonu la nu bëgg di bëgg bis bu nekk bégal yàlla loolu tax ñu jël tomb bi bégale ko gaa yooyu nga xam ne dañu bëgg yàlla di kontaan ci ñoom bis bu nekk gaa yooyu nga xam ne danañ dox jëm ci julli di dem teel balaa julli ñu koy taxawal toog ci jàkka ji di xaar imaam comme ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam waxee pour lan pour gaaw dem fekke takbiratul ihram waajaa ngay waaxu waajaa ngay dem lan moo tax dafa bëgg a fekke takbiratul ihram albishara yow moomu di waaxu yow moom di dem avant ñuy nodd déglul li la yonent bi bégal yow moomu ci hadisu anas ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى يننت بننا واجوج كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق يننت ببغل نواجي دي دم di fekke ji kabbar gu njëkk ñaata fan la ko def arbaina yawman 40 jours 40 jours yoo xam ne waa ji du tag du tarde kabbar gu njëkk yonent bi nee na képp ku def loolu képp ku am assurance julli ci ginnaaw imaam ñeen fukki julli ngay fekkee kàbbar gu njëkk gi yonent bi nee na waajooju yàlla dina def ci moom ñaari mbir yàlla dina dindi turam ci waa safara yàlla dina dindi turam ci naafiq yi lii rek doy na waaye mbokk julit yi fa yaalaha min busra azima liman hafaza ala hadihi al ibada al azima ala wa hiya takbiratu al ihram mbégtee ngi nii mbégte mu rëy ci waajoo xam ne dafa wattu jaamu yàlla bii jaamu yàlla bu màgg bii di takbiratul ihram fa maza yuridul musalli kii julli lan la bëgg ñun ñuy julli lan lañ bëgg ñiy woor lan lañ bëgg ñiy joxe asaka lan lañ bëgg ñiy aji màkka lan lañ bëgg lu dul rek an najaatu minan naar mucc ci safara rek ñun ñëpp di jaamu yàlla lool dong moo tax ñuy jaamu yàlla mooy lan mucc ci safara waaw su la yonent bi ne boo fekkee takbiratul ihram ñeen fukki fan ñeen fukki julli yàlla muccal ne la ci safara lu ci desati pourtant bu ñu waxoon tey benn waay fii boo jullee 40 jours ci ginnaaw imaam ngay fekk takbiratul ihram boo paree dinañ la may benn château fii ci VDN bi ñun ñii ñëpp kan moo koy tardé wala dinañ la may benn carte carte wala dinañ la may soxna allahu akbar da ngay dégg waa ji mu ne ñaata fan moo ma dese allahu akbar dama ko jéngu léegi sax ci jàkka jalaa dëkk wala ngay dégg waa ji mu ne ci jàkka jalaa dëkk léegi kay ba affaire yi jeex rek allahu akbar ndax lan mbirum àdduna fa maza yuridu almusalli illa najaa kii julli bëggu rek lu dul rëcc ci safara dugg aljanna waa ji bëgg lu dul baraa min an naar lu dul deñ ci safara loolu dong la bëgg wal baraatu min an nifaq deñ ci naafiq ñaari musiba yu bon yooyu amma baraatu min an naar fekkee deñ ci safara faqad qaala al mubarak al furi rahimahullah alxilaasu wan najaatu min an naar sëriñ bu mag boobu nga xam ne moo bind siira boobu nga xam ne am na ci prix bu rëy a rëy mooy mubaarak fóori xam ngeen ne tafsir na bulughul maram bi muy firi hadis bii bi mu tollee ci wal baraatu min an naar ni mu ko tekkee mooy alxilaas wa najaatu min annaar mu ne waa ji dafa bëgg a mucc dafa bëgg a rëcc ci safara loolu dong la waa ji bëgg moo tax mu respecté takbiratul ihram amma baraatu min annifaq fal muhafazatu ala takbiratul ihram ma al imam mu ne bu fekkee denc naafiq mooy mu watt julli gi respecté ko di fekke ak imam kabbar gu njëkk nee na nekkul mu bàyyi ba imaam ne allahu akbar bay rukoo mu daw ñëw déedéet nekkul mu daal di bàyyi ba imaam ne allahu akbar mu ñëw fekk imaam di jàng fatiha am na sax ñoo xam ne nangul nañ ci borom xam-xam yi nangul nañ ki fekke imaam di jàng fatiha ñu nangul ko takbiratul ihram am na ñu ko nangul waaye am na ñoo xam ne dañoo bañ nee nañ bi imaam neen allahu akbar bay loxoy di daanu waa ji ne allahu akbar jeex na ku ñëwati da ngay dabe fekkeetoo takbiratul ihram waaye ñetti xaaju lañ ci xaaj ñenn ñi maye nañ sax ba ngay fekke rukoo ñu ne fekke nga takbiratul ihram pour rek waa ji bañ ko ñàkk mbokki jullit yi war nañu góorgóorlu bu baax ñu xam sunu diine nu roowul ak waa ji nga xam ne day bàyyi nekk masbuuk ku ñu jiitu wala sax buy ñëw ci julli day ñëw du ko neex ku tayal nee na waa ji moom la yàlla di wax ci qur'an ne wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala yuraa'una annaas waa ji nga xam ne buy ñëw di julli sax day tayal di direeku waaw lan moo tax muy dem bañ na toog fii rek nit ñi ne waaw lu tax kii julli jiwul moo tax mu diree ku dem waaye bu amoon lu ko neex wala balaa muy dem rek mbooloo mi yëpp ànd mu daal di ànd seen biir lu tax mu dem parce que mbooloo mi yëpp a dem rek mu daal di ànd ak ñoom déedéet kii moom tiyaaba moo ko yóbbu bëgg a mucc ci safara bëgg yàlla génne ko ci naafiq yi ixwaan yi bu ñu yaakaar ne rek wattu julli mooy fekke takbiratul ihram waaye day nekk ci ñaari mbir yu jafe-jafe dafa laaj doomu aadama sonn ci góor góorlu ci ndax yàlla tabaraka wa taala dimbali ko ci képp koo xam ne da ngaa dund di respecté takbiratul ihram ba nga faatu kooku day bu yeboo mu bég kooku bu yeboo mu kontaan kooku danañ am yaakaar ne yàlla muccal na ko ci safara yàlla subhanahu wa taala dindi na ko ci naafiq yi wa kaana baadu salaf yaqul man ma fatat ahadan salatul jamaa illa bi zambin asaaba ñenn ci nit yàlla yu baax yi nee nañ képp koo gis muy bàyyi julli mbooloo kooku ay bàkkaar ñoo ko teree julli ju mbooloo koo gis rek du dem mbooloo jamais mu julli mbooloo moom kenn cundum këram allahu akbar assalaamu aleykum kooku ay bàkkaar a ko téye na xoolaat boppam am na lu mu def am na bàkkaar bu mu def bu ko teree julli ji ci mbooloo mu ne ab julli dafa war a xër góor góorlu ba muy fekke takbiratul ihram mu tuub ay bakkaaram mu bàyyi càggante tey àddunaa ngi nii da ngay gis nit ñi bu ñuy déposé ay këyit yenn saa yi day jaral ñenn ñi ñu fanaani chaque jour léeg-léeg bu recrutement armée amee damay romb xale yu góor yi fii ñuy fanaan ci mbedd mi ci SEDEPS bi di fanaan ci mbedd mi allahu akbar la moo tax xale yu góor yooyu fanaan ci mbedd dañoo bëgg ñu jël leen ñu nekk ay militaire liggéey mu jaral leen fanaan ci mbedd ñan ci ñun la julli ji jàkk fajar jaral fanaan ci mbedd mi waa ji sax nee na kenn ci ñun doomam buy def examen muy def entrant sixième wala COP mu xëy suba mu yóbbu ko ba ci école bu muy defee mu won ko classe bi mu ne ko papa fii laay defee gis nga numéro baa ngi nii papa ji jël mille mille francs jox ko mu ne ko toogal fii bu ñu ubbee nga dugg mbokk yi doom jooju nga yóbbu ba ci école ba jox ko ndékki mille francs mu wàcc midi nga ni ko tey seen examen bi nu mu demee mu ne la man kay defuma ñaari matière nga ni ko lu tax mu ne gis nga papa foofu nga ma bàyyi woon da ngaa dem rek ma nelaw kenn yeewu ma lu dul ñaari matière passé doom jooju ku ko jur ci ñun ci jumaa ji nooy def dama leen a laaj doom jooju ku ko jur ci ñun ci yéen ñi julli si jumaa doom jooju noo koy def alal aqal kenn dina ne dama koy dóor bu dee ku doon def bag la nag wala muy def BFM nga xëy jox ko 5000 francs ne ko jëlal taxi gaawal nga dem yaa ngi ko yee 5 heures du matin boobu faj boobu julleeguñu suba faj salaatooguñu mu xëy ne la man kay tey journée bi defuma ko papa damaa tardé matière yëpp ndax midi laa egg école ba nga ni ko loo doon def mu ne dama doon dox doom jooju ku ko jur noo koy def da nga koy génne kër gi parce que ponkal la léegi yéen ñaar yéen a tolloo mu ne kan ci ñun fii la doomam di tardé fajar ku sa doom tardé fajar julli ji jàkk loo koy def sànq ki tardé examen entrée en sixième da nga ne dama koy dóor ki tardé BFEM nga ne dama koy dóor ki tardé bac nga ne dama koy génne kër gi ki tardé ñaari ràkk fajar loo koy def bal sax ñu ëpp ci ñun bu ñuy julli ji duñu yee seen doom seeni soxna sax duñ julli dañuy jóg rek ñoom dem julli ji ñëw waaw bàyyi soxna si mu tëdd waxuma la ak doom yi mbokk yi fal muraadu min al hadisi anas borom xam-xam yi ñu doon firil hadisu anas ñu ne al mulazama wal mu waazaba ala takbiratil ihram waxuñu nga dem julli ji 40 jours rek ñeen fukki julli rek ci ginnaaw imaam rek daa di jeexal daa ne wu man kay léegi yàlla dindi na ma ci safara yàlla muccal na ma ci naafeq yi jeex na nga daa delluwaat sa caaxaan déedéet du loolu de mooy waabud rabbaka hatta yatiyaka al yaqin jaamul yàlla ba dee fekk la ci xam ngeen ne ku julli ñeen fukki ku julli ci ginnaaw imaam ñeen fukki julli nga fekkee takbiratul ihram xam ngeen ñeen fukki julli ñaata fan la ñaata farata la ku julli arbaina yawman 40 jours ci ginnaaw imaam xam ngeen ne ñaata julli la téeméeri farata la téeméeri farata yu waa ji respecté ci ginnaaw imaam fekk tardewul takbiratul ihram allahu akbar mbokk yi nañ xool salafu saalih lan la ñu wax ci takbiratul ihram qala albard mawla said ibnu musayib rahimahullah mu ne ma nuudiya salaa munzu arbaina sana illa wa saadun fi lmasjid burd wala bard mbaa yàlla saad ibnu musayib la woon jaamam la woon bu saad daan jàpp moom moo koy sottil ndox saad ibnu musayib di jàpp moom nee na man li ma fekkee ma xam ko mooy ñeen fukki at noddukat bi noddu lu dul saad ibnu musayib mu ngi ci jàkk ji toog ñeen fukki at saa yi noddukat bi di noddu day fekk waa ji mu ngi toog kooku ñun mun nañ concurrence ak moom déedéet sufyan ibnu uyaynata rahimahullahu taala mu ne min tawqir rajuli lissala an yaatiya ilayha qabla al iqama mu ne bokk na ci li ñuy xamee nit respecté na julli balaa ñuy iqaam mu taxaw balaa ñuy iqaam mu taxaw loolu mooy wane ne nit respecté na julli balaa ñu naan iqaam leen fekk waa jàng ci sappe bi taxaw ibrahim ibnu taymi mu ne at taymi mu ne iza raayta rajul yatahaawanu fi takbirati l ula faghsil yadaka minhu allahu akbar ibrahima nee na boo gisee waa ji mu sàggane takbiratul ihram raxasal say loxo ci moom koo gis mu sàggane takbiratul ihram mu ne raxasal say loxo ci moom mooy lan mooy bul am ak moom affaire waki rahimahullah nee na man lam yudrik takbiratul ihram al ula fala tarju xayran minhu képp koo xam ne du fekkee takbiratul ihram nee na bu kenn yaakaar ci moom lu baax ku ko ci yaakaar tam doo ko ci am lu tax ndax ku respecté wul yàlla munoo respecté keneen loolu mooy wax bi loolu da alquran naan ñu wala tunkihul mushrikaati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun xayrun min mushrika yàlla mu ne jigéen buy bokkaale sax bul ko takk nga dem takk jaam bu jigéen bu dul bokkaale moo gën nga takk gor guy bokkaale noonu ko mu ko waxee ci jigéen ñi noonu la ko waxee ci góor ñi wala tankihul mushrik hatta yu'min na wala abdun muminun xayrun min mushrik kon ndeke ku dul respecté yàlla munoo respecté keneen hisham nee na ibnu ammar rahimahullah sami'tu waki yaqul iza ra'ayta ar-rajul laa yuqiimu takbirat al ihram fala tarju xayran minhu isaam nee na boo gisee benn waay respecté wul takbiratul ihram nee na bul yaakaar ci waa jooju yiw kenn ci salaf nee na julli naa 40 40 ans julli naa 40 ans musumaa xool doq nit musumaa xool doq nit loolu loo ciy dégg ki julli 40 ans gisul doq nit te mu ngi ci jàkka ji fan la nekk saful awal yéen ñi nekk saful awal du ngeen gis doq nit allahu akbar 40 ans mu ne gisuma doq nit ci biir julli chaque jour lu tax maa ngi sàppe premier yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na nu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi waxda wala nabudu gayra muxlisina lahu diin walaw kariha alkafirun ibadallah mbokk yi sunu yonente alayhi salaatu wasalaam mu ngi ñuy soññ pour rek ñu fonk takbiratul ihram mu ne même nit bu jullee jàkk bu duggee jàkk dafa war a julli ñaari rakk nuyu jàkka ji waaye bu dee bëre dugg mu gis imaam taxaw nee na dafa war a taxaw bàyyi naafila bi yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na iza uqimati sala fala salata illa al maktub mu ne bu ñu taxawalee julli kenn ci ñun waratul julli benn julli lu dul mu julli julli farata bi teew loolu nag da ngay gis tey ku julli di profité naan xaaral ma gaaw def ñaari rakk te boobu ñu ngi waaj a iqaam wala waa ji sax dégg na commencé nañ li xam bi mu ne xaaral ma gaaw julli ñaar rakk yoo xam ne fatiha rek laa ci def après ma daw dabi imam takbir ihram raw na la li nga doon ut li nga perte moo ko gën loolu moo tax ma ni nit ñi dañoo war a dégg diine waaw mbokk jullit yi nañu xër bu baax a baax a baax ci di fekkee yiw yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala moonu ko baaxee bokk na ci hadisu abi hurayra radiallahu anhu nee na sabaa sabaatun yuzilluhum llahu fi zilli yawma alqiyama juróom-ñaari ngi ni ñoo xam ne yàlla dina leen utal ker ëllëg yawma alqiyama juróom-ñaari nit ñooñu ba leen yonent bi di lim lu mu njëkk a wax imaamun aadil shaabun nasaa fi taatillah wa rajulun zakara allaha fi lxala fa faadat aynaa wa rajulun qalbuhu muallaqum bil masjid allahu akbar fenn bi dong moo ñu intéressé tey mooy waajoo xam ne xolam mu ngi aju ci jàkk jullit ci biir jàkk mu ngi mel ne jën ci biir ndox jën boo ko jàppee ci biir ndox nga génne ko nga sànni ko fee ci suuf ki ci suuf si 20 minutes lu muy def day dee amma feet mu ngi ci biir ndox mi mu ngi dund jullit ci néegu yàlla yaa ngi dund waaw néegu yàlla bi doo fi xalaat lenn lu dul jaamu yàlla jàng alquran zikr wax lu baax julli ah loolu kese ngay xalaat ci néegu yàlla doo nekk ci néegu yàlla mu ngi di xalaat leneen xanaa nga nekk keneen mbokk yi i'lam ayyuhal muslim أن هذه البصرى والفضيلة العظيمة إدراك تكبيرة الإحرام تحتاج منك مجاهدة مجاهدة لنفسك جهادا عظيما فالأمر ليس باليسير ñun ñëpp nañu xam yàlla nu yàlla yërëm ne mbégte bi yonent bi di bégelaate te mooy fekkee takbiratul ihram dafa laaj góorgóorlu dafa laaj sonn dafa laaj sonn xoolal tey ni ñu programmé suñu bopp ci dundu àdduna kuy tukki di jël vol doo tardé kuy xëy liggéey doo tardé kuy jàngi doo tardé sunu dund lu ëpp am na ñoo xam ne añ ak reer ak ndékki sax du ñu tardé normal heure waaw léegi nag te loolu amoo ci dara luñ la dig ëllëg aljanna xoolal bi gën a doy waar mooy ku julli 40 jours ci ginnaaw imaam yonent bi nee na da ngay mucc ci safara waaye dañ lay dind ci naafiq xam ngeen naafiq mooy lan mooy li Omar doon ragal di ko nekk daan laaj Huzayfatul Yamani naan ko Huzayfa yonent dafa jël Huzayfa def ko def ko lan def ko saahibu sir def ko ki yor sekkere yonent yonent woo Huzayfa ba mu ñëw yonent jël listu naafiq yi jox ko Huzayfa mu ne ko ñii ñëpp ay naafiq lañ buñ dee safara lañ jëm te ba ko yonent bi di dafa loolu allahu akbar ñooñu ñu ngi ci ginnaaw yonent bi di julli ñooñu ñoo ngi woor ñoo ngi ànd ak yonent bi jihaad si yonent bi wootee ñu ñëw te yonent bi nee na Huzayfa mu ne ah mu ne ko ñii ñëpp safara lañ jëm kon ñun fu ñu jëm waaye xoola Omar ibnul Xattaab da daan bàyyi ba guddi mu ñëw fëgg buntu kër Huzayfa Huzayfa ubbi mu ne Huzayfa leen dong moo ma fi indi de moo ma tere nelaw mu ne ko lan la mu ne ko sama tur mbaa nekkul ci naafiq yi dimbali ma nga wax ma ko allahu akbar omar mooy ragal nekk naafiq Uzayfa ne ko yonent dafa ne woon bu ma waxee tur yi omar nan lay def pour mu xam ne kii faatu naafiq la wala du naafiq su nit deewee Madina faatoo ñu koy jullee omar day laaj ana Uzayfa bu ne maa ngi nii omar kabar su ne ana Uzayfa ñu ne ñibbi na omar jël ay dàllam ñibbi lan la yàlla wax naafiqi ci alquran innal munafiqin fi darkil asfali min annar yàlla nee na naafiqi yi ñooy xóoñu safara ah naafiq dégg ngeen li ci yonent bi wax zu wajhayni laa ilaa haula wala ilaa hula- haula muzabzabina bayna zalik du jullit du yéeféer su jullit ñu wootee mu dem bu yéeféer yi wootee ñu dem kenn xamul fu mu bokk mbooloo moom dugg rek mel na noonu loolu ku julli 40 jours ci ginnaaw imaam yonent bi nee na yàlla dina la musal ci loolu kon loolu dafa laaj góorgóorlu feebar boobu dafa laaj faju dafa laaj deñ moo tax mu ne li la ciy dugal pour nga am takbiratul ihram foog nga góor góorlu nee na mbir mi yombul waaw nga góorgóorlu di dem jàkk nga góorgóorlu balaa ñuy noddu cinq minutes fekk la ci jàkka ji wala nga góorgóorlu waa ji buy ubbi jàkka ji fekk la fa wala buy noddu mu fekk la fa wala bu paree noddu fekk la fa yow daal góorgóorlu rek ba imaam buy wax allahu akbar nga nekk ci ginnaaw imaam mbokk yi kenn ku nekk nag pour nga natt sa bopp xoolal tey rek buñ la waxoon palaasu sàngam buñ la fa fekkee ci heure sàngam di nga am nangam nga xool sa bopp moo tax ëllëg yàlla pour mu attenu du sonn tey ñun ñii ni ñu àdduna jaral ni ñu àdduna jaral ba xale yi tey di jël gaal di dee ci géej gi lan la pour fekkee takbiratul ihram la ñii di jël gaal yi pour lan la pour julli ji fajar France pour julli ji fajar Espagne loolu moo leen tax a jël gaal lan la poñetu àdduna waaw poñetu àdduna alal est-ce que sunu diine jaral na nu dee est-ce que sunu diine jaral na nu guddee est-ce que sunu diine jaral nañu bañ a nelaw est-ce que sunu diine est-ce que sunu diine te pourtant koo ci wax boo defee nangam bi ah même wird rek koo ci wax gis nga wird bii tur bii turu yàlla la soo ko fanaanee wird ba fajar allahu akbar day gis waa ji toog nee nañ iblis dafa am benn waay bu réer la woon jama mu wër jama bi ba sonn gis ko fu nekk kër gi ubbi na ko mu xool gis ko mu dem ci benn borom xam-xam mu ne ko sama jamaa dafa réer damaa bëgg nga defal ma ñaan boo xam ne bu feeñee bu ma ko jaayee yow di nga ci am mu ne ko loolu kay yomb na mu ne ko lu tax mu ne ko demal nga fanaanee naafila rek boo fanaanee naafila ñetti guddi di nga ko gis waa ji dem jënd ba sajaada bu bees satala bu bees mu ñëw jàpp lal sajaada bi mu ne allahu akbar bim ne alhamdulillahi rabbil alamin iblis ñëw ne ko jamaa bi mu ngi ci suufu tappi bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah mu daal di yëkkati tappi bi mu gis jamaa bi mu mu lal sijaada bi mu sànni satala bi mu tëdd nelaw gars yi ñu ne iblis yow lu tax kii bàyyi woo ko mu continuer mu ne wuubu bu ñaafilaa ñetti guddi day dugg àjjana te bu amee jamaa bi du dugg àjjana bu naafilaa ñetti guddi day dugg àjjana te comme bugguma mu dugg àjjana su gisee jamaa bi dootul naafila ma ma feeñal jamaa bi moo gën mu mu muy am tiyaaba bi ñun ñëpp noonu la ñun ñii ñëpp waaw. ndeysaan benn booy bu ma dëkkal ñetti fan damaa gis damaa xëy di ko gis ci jàkka ji ñetti fan fajar ma jaaxle suñu asalaamaaleykum mu ne ma ma nuyu ma ma ne wow ah alhamdulilah rabbil alamin quatrième jour ma laaj yaay mu ne ma dem na Italie ma ne ah kii ndeke visa bi la doon lewal allahu ak quatrième jour ma laaj yaayam gisuma ko mu ne ma dem na Italie ma ne ah kii da doon jéem a nax yàlla quoi moom ñun ñëpp noonu la ñuy def da ngay gis fi élève buy jàng cey bu ma amee bac ñetti fan mu respecté ko jàkk di woor am bac rek macha allah ah eh waaw ah, am naa bac ah kon looloo tax léegi doo ñëw jàkk mbokk yi yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu sori ko incha allah bu ñu paree julli am na benn mbokk jullit bu ma jox ordonnance am moo ngi nii sama poos suñu paree incha allah mbokk yi lu ngeen ko mën a jàppale ngeen jàppale ko xam nga léeg-léeg ñu taxaw fii di laaj di wax waaye na ngeen jàpp ne jullit yi rek ñoo sonn jullit yi ñoo am jafe-jafe moo tax amuñu fuñ jëm lu dul ci seeni mbokk jullit lañ jëm suñ ñëwee aussi foog ñu yeggale leen ko pour kenn ku nekk bu ñu sotee mbir mi rek mu daal di yomb ci moom na ngeen jàpp ne yéen a ngi am tiyaaba yu rëy a rëy yéen a ngi dil seen dërëm yi di joxe ci ordonnance yi lan la yàlla wax ci alquran man ahyaaha fa ka annama ahya nnaasa jamian ah ordonnance su nit ku feebar kuy waaj a faatu nga participer ci wala ku am jafe-jafe adduna nga participer ci ba waa ji nekk ci féex wallahi ëllëg yàlla dina la féexal ndax hadis la man nafasa an muminin kurba min kurabi dunia nafasa allahu anhu min kurabi yowma alqiyama ku dindil jul jullit jafe-jafe ëllëg yowma alqiyama yàlla dina la dindil jafe-jafe kon bu ñu paree julli incha allah lu waaye mën a dimbali mbokk boobu ñu dimbali ko ngir yàlla allahuma igfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tuazibna bada almawt birahmatika ya arhama arrahimin اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله